assouplissement bi nga xamante ne état bi moom la def par rapport ak mesures yu mu jëloon euh, ak violence bi nga xamante ne moom lañ seetlu ci àdduna bi yëpp rawatina euh, suñu dëkk Sénégal. état bi dafa ne benn mois amatul pexe si corona bi dafa ne benn mois amatul pexe xam nga xam nga ni ku ñàkk pexe mi mel ni muus nga koy dàqa ji nga duggoon nga dem ba dugganteeg moom si biir nga dem ba dugganteeg moom si biir duus mu nga tëj bunt bi mu jàkk amatul pexe noonu la mel ak population bi dafa ne benn mois amatul pexe. parce que Macky Sall ba mu njëkkee génn on va vivre avec le virus dund leen ak virus bi yàgg naa ne ko dund leen virus mooy kaal ñu dund ak virus bi ni ñu mel baax na lu ku mu dal baax na wóor na alxuraan kariim gars yi instant yi ni amuñu pexe amuñu benn maanaam seen commencement bi ba fin lu ñu calculé wu lépp fausse amul dara lu si léegi nag population bi xam nañ ne gars yi joxuñu leen dimbalewuñu leen jàppalewuñu leen comme am la ba bëgg leen xañ yaa may dégg léegi nag loolu moo gën a tax ne population bi génn taxaw ne ko carrément lii du ci dal couvre-feu bi na na fi yem parce que ñun sonn nañ julli bi la même chose bu gars yi ba ñu sonnee dañ ko ne bàyyi ñun sonn nañ parce que yow yaa ngi ñuy jiite mais xamuñ yow defal nan ko guerre yow guerre nga au commandant guerre ñëpp taxaw di la xaar pour nga guerre yow nga toog di liggéey xam nga kon pays boobu day tardé loolu c'est forcé parce que commandant yaa war a jiite si kanam xam la ne gars yi nii la war def nii la ñu war a nii nii nii nii yow defuñu ko yow sa bopp yow yaa dem toog déliroo kon ñeneen ñi dañuy nelaw ko moom la Sénégal instant yi moom moom waxuñu de mais pëcc xoo fi am léegi nag benn affaire am xam la force de l'ordre ñoo lay jàpp di la jaay doole naan la da ngay fay 6000 da xool réellement xam la ñun instant yi ñu ngi commencé léegi sa tàmm nañ dund ak virus bi léegi sol max sax problème la xanaa kay lan moo tax gars yi sol max léegi parce que au moins policiers yi des ñu jàpp la dóor la du genre xam na mais réellement réellement réellement corona bi même bu dee am na nañ jàpp ne dugg na Sénégal xam la te dund dugub boo xamante ne yàlla rek moo ñu mën suturaal bu jóge fi mais du gouvernement moo teg matukaay yoo xamante ne mën na ko fi jëlee wala keneen ak keneen parce que ñun suñu commandement ba mu toggee li li moom la réew mi tardé on est dëggantaan ci pays boo xamante ne dafa tardé 200 pour cent léegi nag problème bi benn affaire bi benn rôle bu xam nga affaire yi daal ku nekk daal da nga loo sentir rek ngay def nii quoi xam nga benn instant. anarchie moo anarchie anarchie moo fi li nga wax anarchie mais xam la may problème mais xam la may problème population bi dafa jouer rôle am ki nga xam te ne moo war moo war a jouer rôle am jouer rôle ma ah, ah, ah, eh, eh, nga rôle nga eh, li nga nga li gouvernement gouvernement ak population ku nekk di dimbali moroom xam nga en matière de coronavirus en matière de coronavirus oh, xoolal même bul corona même même non dama la dama la bëgg expliquer benn affaire rek en matière de coronavirus day toll foo xamante ne du état Sénégal kese quoi mais adduna bi yëpp état yëpp lépp lu mu ciy jël rek improvisé lay nekk parce dafa nekk benn feebar boo xamante ne maanaam ba fu ñu toll nii nii nii nii di wax amul kenn koo xamante ne maîtriser nga kenn xamul maanaam lan lay def yan conséquences lay indi ay affaires yoo xamante ne ko rek moom mooy ñëw. bàyyi dégg nga bàyyi kon kon amul sens kon defaan kon defaan. foofu loolu état bi état yoo xam yoo xam yoo xam yoo dafa mel ni yow état bi bañ ba ñuy defar état dañoo xool benn Moussa boo xamante ne du tous mënul dara gars yi jéeg-jéeg ko fal fal nañ la ministre lii ñu xool ke mais defal naan quoi suñu nee état parce que on a mis des cadres gars yoo xamante ne façon problème bu am xam la am nga nit ko xamante ne mën ko résoudre moo tax moo tax ñu naan la ministre de la lii ministre de la ministre de la ministre de mais mais c'est pourquoi xam la des fois ñu ne la kii mooy force lii kii mooy force armée lii kii mooy lii mais loolu la parce que ñooñu loolu lañ pratiqué loolu lañ xam léegi yow fekk yow defe naa léegi léegi waaw ba ma yégal léegi fekkee yow ñooñu fekkee ñooñu yow da nga am problème nga xamante ne ñoo ñoo maîtriser eh, man man man pour man mag man Macky il n'a pas parlé ak ñu mu war a waxal la waxal pour man parti rek la waxal mais ñu mu war a waxal réellement il n'a pas parlé avec un parce que Sénégal nañu wax dëgg xoolal di defee mu exemple le professeur Moussa Seydi heure bu waxee barki yàlla nga déglu ko nga xam ni kii am na lu bëri li nga xamante ne gars yi ñu koo moo tax joxewul avis mais heure bu waxee nga nangu dañuy wax ministre euh, ministre de la santé mais jamono ji wóor na yàlla Moussa Seydi moo war a nekk ministre de la santé ka bu ñu waxee normal qu'on la vérité nañu wax ne dëgg lu ma lu ma xam si affaire de fer comme ma ko si xam mais mais bu jëm da ngay xool ki nga xamante ne fu mu nekk yow déjà Sénégal yi nangu nañ ku fi ñëw Ebola moo ko fay comme moom la kon kooku il mérite d'être ministre kooku waru kenn waru ko jiite au moo war a jiite ba mu demee Casamance gis ne salle de rémunération am fa lii am fa lii am fa ba mu ñëwee déclaré ko euh, ministre bi da woo si guerre toll nañ toll nañ plus de un mois ñoo xam ne ñoom ñaar duñu wax ba mu yaay yëpp di ko wax il a fallu que Macky Sall ñëw interview seen diggante mais kooku moo war nekk ministre mais boo jëlee affaire bi def ko affaire de parti Sénégal nii lay doxee fii Sénégal ñu ngi koy def affaire parti kii moom moom lii parti bi nga bokkoon fii lañ lay fal fii lañ lay fal nii lay doxee barki yàlla problème bu ñu mënti am ah, ça va pur saa yi defal ndànk yow yaakaar nga ministre de la santé dañ ko war a jël parce que yow benn situation benn benn benn virus dugg na si dëkk bi comprendre mu la yow réussir nga si maanaam def nga si li nga ci war a def ba am ci résultat yu positif xam nga moo moo xam muy Ebola xam nga moo xam muy coronavirus xam nga wala loolu benn politique la boo xamante ne koo xamante ne xam na suñu plateau médical bi dëggantaan njaay li ci nekk problème yi nga xamante ne moom maanaam problème yi nga xamante ne moo am ci biir Sénégal ak ci biir gox yeeg goxaat yi ak ci biir région yi nga xamante ne ñoom ñu ci biir àll bi li fa nekk comme problème comme problème la bëgg maanaam xam nga ministre de la santé d'accord nañ quoi xam nga parce que bu ñuy wax quoi euh, ku nekk daal maanaam ku nekk yow sa xam-xam ci li mu màcc rek ñu teg la ko comprendre waa ji xam-xamam màcc na ci wàllu faj xam nga ni ma la. mun nañ ko teg ministre de la sa mën mën nañ ko bàyyi foofu noonu quoi moom moom ci poste bi mu nekk parce que Sénégal yëpp rafetlu nañ liggéey liggéeyam par rapport ak li muy li mu nekk di def quoi comprendre la mais comme nga jël benn professeur Moussa Seydi def ko def ko ministre de la santé parce que lii la wala parce que laa la xam nga li ma la te yaa ngi xool Sénégal suñu plateau médical bi cóol bi mu cóol

Kaaw Moussa Seydi moo si gën a tuuti non pour te loolu parce dama xam ne moom ñëpp xam nañ noonu lay soo xoolee xoolal poste yi yëpp ku bokk soo bokkul Benno wala bokkoo APR xam la doo doo doon nekkoo ki am de yaay ji poste yi Sénégal moo dépassé loolu nga nga réew dañ koy construire ensemble xool nga borom xam-xam yéen ñoo am xam-xam ak yow lan nga duyoo ak lan mën xam la mais ñu avancé loolu parce que Sénégal instant yi loolu la soxla instant yi solo soxlatul ni kii APR la bokk kii réew mi la bokk xam la soxla liggéeyandoo travail ensemble construire Sénégal au moins pour une fois même bu dee benn cinquante ñu gëm def ko réew mi réussir nga xam ne loolu suñu réussir la ñun ñëpp suñu doom ak suñu mbokk ak suñu ñëpp suñu réussir la. comme mesure d' assouplissement yoo xamante ni defoon ko Macky Sall waxoon na ko pour pour maanaam mën a soulager population bi ci maanaam ci yenn gestes yi ci yenn. maanaam ci yenn déplacement yeeg aller va et vient yeeg genre yooyu noonu ñu def euh, population bi commencé def pour mun leen pour mun leen jàppale naanaam affaire bi daroon na tar boo xamante ne feebar bi mënoon na Sénégal euh, mën boo xamante ne tey jii nii dañu amoon problème maanaam euh, bon am nañu ay mille mille et quelques cas sans waaye jël na Macky Sall jël na ay mesures pour assouplir pour wàññi mm, pour wàññi maanaam mesures yi mu jëloon. léegi dem na la lañ amoon dañ doon dem ba 6 heures du matin ba ay 20 léegi dem ba léegi yóbbu na ko ba 23 heures ba cinq heures ay mesures yoo xamante ne jël na ko te feebar baa ngi fii nii nekk fi ba ba tey jii nii léegi nu noonu lañ ko mën a expliquer cest à que moom yan yan ci yan ci yan moment la la jël la jël décision yi alors que pic bi ministre de la santé wax nañ ne pic bi ak yeggaguñ ko. yow pic bi yeggaguñ ko pare yow nga jël mesure assouplissement pour wane ne yow tuy compati par rapport ak violence bu nekk ci population yi ñuy ñaxtoo consogo gu noonu loolu day am yenn jeexital yoo xamante ne dafay présenté wu mais maanaam sans waay est-ce que mu ngi déglu le ministre de la santé est-ce que virologue yi maanaam ñi yelloo di waxtaan di waxtaan di di joxe seen xel ci wàllum feebar bu coronavirus bi est-ce que moom moom mu ngi leen di déglu bu baax dara su ko leen bu baax yenn mesure d'assouplissement yi yu mu waroon jël waru ko woon mën a jël ci moment bii nii ndaxte feebar bu mu ngi ñuy gagné am na nit ñi nit ñi nit ñaa ngi ciy dee te euh, bu njëkk ba ay 30 la ñu amoon léegi ay ñu ngi ci 40 day day dem ba gën di day gën di yokk lan la ci Macky Sall lu tax mu taxaw ne ne dee économie dafa war a dox lu tax mu taxaw ne dee gars yi dañoo war a circuler lu tax mu taxaw ne dee. Euh, circulation bi transport bi dafa war a dox lu tax mu taxaw ne dee na lu mu ta arrêté woon maanaam lëkkaloo beeg maanaam lu ñuy lu ñu doon bokkalante ak genre yooyu noonu pourquoi pourquoi mu ne leen ne da war a dund ak virus bi te alors que ne tey jii nii te la waalo gën a ay mu ngi ñuy rey mu ngi mu ngi mu ngi yàqal mu ngi mu kii pourquoi moom benn instant mu jël mu jël mesure yooyu noonu mesure yooyu noonu mesure yi nii war nañ ko xoolaat war nañ cee taxaw ñu jàngat ci violence yi nag mun a ñàkk population boo xamante ne ne répression am nga ko chaque moom am nga ko ma woon ci laa fi waxoon ma ne ne depuis 1903 trois couvre-feu lañ fi am Sénégal 1988 amoon nañ fi couvre-feu boo xamante ne tarona tara boo xamante ne ci wàllum politique la tey jii nii tamit c'est la même chose am nañ am nañ couvre-feu boo xamante ne ci wàllum sante la léegi wàllum santé boobu noonu couvre-feu boobu nekk fii taxaw fii nii population bi xamu ko population du Sénégal xamuñ loolu mu ndaxte mosuñ confronté ak ay guerre yu tar yoo xamante ne dina mën a pousse ñu mën a ñu mën a toog seen kër ndaxte danger bi moom moo fi nekk léegi nag tey jii nii suñ demee population bi bu nara dundaat loolu ci wàllum feebar léegi ñoom dañuy am problème ndaxte ñoom doo dootuñ doon luñ luñ doon xaar ci état bi amatuñ ko état woo xam ne di leen jàppale ci yenn ci yenn mesures yi maanaam di leen jox ay lekk conso boobu donte sax man contesté naa ko mais loolu am na am na ñu mu leen di jox mais dooy jox boobu noonu moo doy te loolu foo foo foo ñu dund ak foo ñu dund ak carence boobu noonu état bi te mais tey jii nii du ma yaakaar ne lu mu bon bon bon bon wax dëgg fa yaa sooy jël yenn mesures yow da war nga taxaw nga wan a war yenn décisions yi ne faire naam mais dama war a dund ak moom mais tëj nga tëj nga école yi nga def mesure assouplissement loolu daf day poser problème. Moussa Sank comme yow sa analyse yi nga jot a def xam nga tu as parlé dans le cadre général pour arriver au particulier parce que boo xoolee euh, li nga wax que ni gouvernement bi depuis euh, coronavirus bu mu duggee biir Sénégal ba léegi décision yi ngay jël yëpp xam nga dangay ngay da ngay naan da nga ne comme en grosso état bi dañ nekk ci en tâtonnement quoi euh, bon baaji bi jéem na la jéem na la faire revenir sax à la raison parce que boo xoolee instant yi état bi dafa affron dafa dafa confronté à une situation boo xamante ne nekkul loo xamante ne dañ ko miin wala dañ ko xam wax la ne. boo xoolee état yi nga xamante ne si àdduna bi yëpp lañ nekk ñoom tamit ils sont confrontés avec le même problème problème boobu moom moo posé wu fépp parce que dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo nekk en face d'une chose boo xamante ne ni amul benn amul benn état boo xamante ne da ko miin donc état bi lépp décision boo xamante ne da koy jël wala lépp loo koy def rek essient ay déggum la da koy def nii rek pour xool nag ça va ça dafay dafay dem wala du dem boo xoolee première décision yi nga xamante ne ni ñun moom lañ jëloon mu def restriction yi def def couvre-feu bi de vingt à à à six heures du matin dindi euh, transport interurbain yooyu yëpp mesures yi état bi teg ko ñun ñii la population était au bout de suuf gars yi dañoo dem ba nga xamante ne ñun ñëpp xam nañ ni lii mënul dem parce que gars dañu dem ba nga xamante ne amatul lu ñu lekk donc état bi mu xamante ne ni nii nii nii bu ñu ko naree continuer essayant déggum la ñenn ñi virus bi sax nekkatul moom moo leen di rey mais xiif moo leen di rey raison pour laquelle ku nekk fu nekk lañ ko kaasee parce que ñun on fait partie du population bi lañ bokk mën ku nekk di wax sa point de vue comprendre nga xam ne ni essient yi dégg état bi décision yi nga xamante ne jëloon na ko waroon na war na war na ko assouplir un tout petit peu gis nañ assouplissement bi gis nañ nu mu demee mais man je peux pas comprendre état bi euh, virus bi mu nekk ci biir dëkk bi jusqu'à présent yow mu leer na ne instant yi surtout mala li nga xamante ne moom mooy transport interurbain man si loolu boo gisee lan moo tax man sama position dëgg dëgg dëgg dëgg man si loolu laa mënul comprendre état bi instant yi feebar bi fi mu toll nii lan moo lan moo waral quelle est la quintessence de ces décisions xanaa même ma yeggali xam nga fa laa bëgg a waxee dama ne comme par exemple instant yi nii transport interurbain yi ministère de la santé ministère de la santé ak ministère ministère de l' intérieur ñoom seen jëm bopp xam nañ ne mesures yi ñu wax ne ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor la transport interurbain yi mesure bi nga xamante ne moom mooy accompagner loolu noonu ñoom xam nañ ni en personne essient déggum la loolu mënul mënul ñoom ñoom apprenti ak chauffeur loolu dañoo mun loolu yow chaque voyage da da ngay da ngay da xam nga moom laa lay wax sànq nee naa la xam la dafa dem ba mënatu si dara dañuy wax dëgg mënatuma si dara loolu lay bañ a wax loolu la le vrai mot mooy mënatuma si tous xam la lu waay xam bootee doomam comme am la parce que benn affaire am la yow xam nga yow xam nga suñu suñu suñu waxoon dans la logique suñu même tur même tur suñu waxoon dans la logique ñëpp xam nañ ni loolu mënul nekk comme am la tey mënul nekk di voyage dëkk ak dëkk ak vidéo fu mu toll nii mënul nekk mais ñoo xamante ne yow ba nga leen war a subventionné ba nga leen war a jàppale jàppale wala ba nga leen war a dimbali dimbali wala te ba nga leen ne toog leen toog nañ plus de trois mois defoo benn geste envers eux xam la mais bu ñu génnee aalu yow yaa nekkul si dëgg état dafa def ma xam ne moom moo nekkul si dëgg moo tax mu bàyyi affaire bi mais affaire bi nekk affaire bi ñëpp xam nañu affaire bi day yokk corona ñëpp xam nañu bu dee feebar am na fi affaire bi da koy yokk loolu Sénégal ñëpp xam nañu ko loolu moom kenn werante nag fekkee nag ba pare te problème mooy du si gën a gaaw mooy ay góor ne non a jëlee oto comme am la fàttali ni moom bu mu toog ak garage am ñeneen ak ñeneen même ñu am yeneen garage loolu lañ toog nombre boobu lañ toog bëgg voyager bëgg moom bëgg liggéey seen kër yi tëj comme am la léegi yow fekkee yow fekkee yow yow leer na ni yow instant yi sa population li nga leen war a jox yëpp joxoo leen ci dara xam ne Sénégal doyal nañ bëggatuñu quoi ngir yàlla na ko jël na jël milliards yi ñun ñoo ko may comment am la sa ñun ñun lañu ñu bàyyi lii la bind suñu parce que ñoom bañ leen waree dimbali dimbaliwu ñu comme am la léegi sëgam nit ki ne gumba boo ko saraxul bàyyi kook yàlla waanam Sénégal fan lañ toll quoi bu ñuy waxante dëgg parce que ñu bañ ñu bañ soxlaa bañ soxlaa dégg bañ soxlaa bañ non non non loolu du ma la bàyyi du ma la si bàyyi nga avancé parce que je suis pas je suis pas tout d'accord avec ça gis nga du cadre de gis nga état état dafa am noo xamante ne moom noonu lay doxee est-ce que comprendre nga sànq nee naa la gis nga feebar bi isient déggum la ni mu mel biir Sénégal noonu la mel ci dëkk yëpp du cadre de état bi dafa ñëw mu débarrassé ma relancé la ma relancé la ma gis nga feebar bi mënatuma si dara sax du gàcce chef d'état bu taxaw ne feebar bi a wax ba mu demee ba cóole ba cóole dafa ne lii mënatuma si dara yàlla rek a si des am na dëkk yi ci mun dara feebar bi kenn mënul si moom dara feebar bi isient déggum la médecin yi wax feebar bi isient déggum la gars yi nan la ñuy def ak nan la ñuy def ba nga xamante ne feebar dañ ciy mucc comprendre nga mais population bi si jëm boppam Moussa boo bëggee dégg-dëgg ñoom ñoo jàppalewul état bi. xool déglu rek xaaral xaaral ma ñëw du cadre du cadre du cadre du cadre moom la gis nga xam ne laal. lu ni nu may métti population bi lan la def kii def na population bi lan la def quoi. population bi lan la def problème même yow même léegi population bi man ngir yàlla wax ma population bi ban cause la def. xam nga population bi lan la def. parce que da nga wàll. bu cadre dañ ko wàll de. léegi wax nga ko laal bëgg xam la laal bëgg a wax. comme état moom jël na ay mesures. est ay déggum la. mais lan mooy lan mooy ndayu état bi mesures yi nga xamante ne jël na ko ñu ñu ñuy tere regroupement ñuy tere lépp lépp lépp ngay ngay constater violence yi nga xamante ne ni est ay déggu la ndax lan ndax dañoo bëgg a dindi ay couvre-feu. mais defal Ablaye Ablaye état bi gars bi dafa Ablaye même ma yegg waaw xam nga laa la bëgg a wax xam nga violence bi ma lay wax noonu xam nga la laa la bëgg a wax lan la changé ñu ne la isient ay déggum la couvre-feu bi dindi nañ ko de vingt une heures à vingt trois heures man xam nga lan moo ma métti isient ay déggum la état moom nga xamante ne ni ñoom ñooy le chef de l' état moom mooy le chef suprême instant déggum la moom moom moom moom lañ moom lañ fal pour pour mu pour mu pour mu jiite muy jël ay décision décision yëpp yoo xamante ne ni fii dañ ko fa yor a dagal c'est le chef de l'État moom mooy jël ay décision instant déggum la mais le fait que ni population bi benn minorité génn instant déggum la manifester ndax lan ndax couvre-feu bi dañ ko war a dindi instant déggum la nga xëy le lendemain ba un état état du doxee noonu Moussa man man tolloon ngir yàlla laay moo la ba état laay moo la ba bàyyi minorité nga loolu noonu loolu noonu ñu génn ñu nekkoon ci. balaa bëgg a waxee yow moom mooy population bi si jëm boppam dafa jàppalewul état bi comprendre gis nga état bu jëlee ay décision état bi dafa jël ay décision décision yoo xamante ne ni euh, euh, pour pour le bien-être pour le pour pour pour suñu bien-être la comprendre nga sànq yaa ngi koy wax mu dem ba nga xamante ne am na ñoo xamante ne gëmatuñu feebar bi am na ñoo xamante ne takkatuñu masque est-ce ay déggum la mais minorité boobu noonu ñooñu noonu est-ce que ay déggum la génn si mbedd taxaw di di di di di taale ay pono xam nga di di di di di lax ay ay ay ay ay ay ay ay ay baare yoon yeeg genre yooyu noonu mu tax nga xëy si ëllëg si rek dégg état bi décision ak mesure yi nga xamante ne ni woon man sama classe ñu ngi doon wax mu état bi instant yi nii pour buggee bu buggee canaliser feebar bi war a gën a yokk nga gis benn minorité génn rek état bi revenir à sa décision donc man je me dis que est-ce que man sax changer nationalité jotagul. waaw mais man pour man pour man ah, loolu lu erreur xam nga état dafay déglu population am tamit quoi. parce que moom li muy def yëpp pour population bi nit ki doo ko wax nii laa lay defalee xam na mais da nga laaj nan nga bëgg ma defalee la ko population bi loolu lañ bëgg c'est normal mu def ko au contraire état bi moom moo def erreur. fi état bi njëkkee def erreur xam nga mooy fan pour man est-ce que seetlu ngeen ne coow lu yëpp mu ngi commencé jour bi état bi waxee damay waaj ubbi école yi premier jour bi mu njëkkee joxe date na day ubbi école si la plaignants yëpp commencé comprendre si la transporteurs commencé aalu. imaam yi di aalu dañuy ibbi jumaa ñun tamit dañuy def li dañuy def li waa Matam njëkk a génn ñoom tamit dañoo sonn parce que foofu dafa tàng mënuñu woor ba ngoon jot xam na dugg seen kër yi amuñu kaa ñu leen di tëj ay vingt heures duñu mën a génn xam nga te mooy li ma doon wax commencement bi xam na am si benn émission maa ngi koy wax maa naan ko maa ngi naan la gis nga fii du Europe quoi comprend nga gis nga suñu demee si tàngoor bi xam nga tey pour ñëpp di daje si benn kër rek nekk foofu noonu à partir de vingt heures ñëpp duggandoo si biir kër parce que fii nii li ma doon wax problème kii bi euh, couvre-feu bi ne état bi daf ko waroon def nii quoi jarul woon ay vingt bu kenn génn mais au contraire moment boobu la waroon organiser affaire parce que man su ma xoolee état bi ñetti problème yi la am xam nga nii comprendre communication xam nga ak anticiper surtout organiser affaire corona bi am na au lieu que nga naan gars yi vingt heures dugg leen seen biir kër mooy li ma la waxoon rek ñu def yenn affaire par rotation xam nga ñii bu ñu liggéeyee ba heure bi wàcc dem ñibbi ñeneen ñi liggéey heure bi ba fajar xam nga. baaji man benn saa man benn saa kii laay wax rek kenn rek laa xam ne nii feebar bi bett na bett na Sénégal de mais kenn kenn kenn rek ci xalif général yi mooy Mouride moom moo ci jël décision boo xamante ne ni ba mu commencé ba léegi ba ba ba muy jeex ba ba muy kii moom moom moom moom moom moom vraiment vraiment vraiment yow mun nga taxaw ne duut sa baaraam ne kii nii lii nii lu mu wax nii lii moom mooy yoon lu mu wax nii lii mooy yoon li mu wax nii lii mooy yoon ba feer bu commencé 2 mars la affaire bi dugg mu ne waaye mu commencé mu commencé toog déglu déglu état état état wax commencé mu xam ne ni nii nii état bi ni mu ñuy doxalee nii nii moom ak ak moom ni mu ko gisee doxalin bi naxtu naxtu jaar yoon mu jël mu jël 200 millions teg ko ci taal bi dimbalee état. ñu ne feebar bi am na am na Touba mu ay ay famille commencé commencé ñu jël leen naan ñu dañu am ay ay cas corona naa gu góor lan la def dafa génne ay ay dund ay ay ceeb. Ah, ay ay duulin ay ay kii du dimbalee ko famille yoo xamante ne dañ leen nekk en quarantaine ñu ne déetawaay ñu ne ñu ne dañu dañuy fermer kii mu ne léegi ne nañ nañ sol ay masque ne nañ sol ay ay ay gants bopp ay ay kii protection pour mun a dem dem dem julli juma ah ñu ne déetawaay ba ba léegi ba léegi ba léegi jusqu'à présent naa affaire bi ba mu amee euh, jeunes yi commencé di kii di di kii lan la dafa génn dafa génn aalu dal seen kaw wax leen ni lii nag lii li ngeen def nii teew leen ko fee ndaxte ndaxte fii nii dëkk bi Touba la da ngeen ko da ngeen ko war a teg teg jaarale jaarale ko ci yoon xam yooyu noonu ay mesures yoo xamante ne waaye teg na ko suñ suñ demee ba suñu xalif général bi di dem bay jël ay mesures yoo xamante ñun les populations du Sénégal dañ ciy gis suñu bopp alors que suñu état bii nii moom moom lañ fi teg moom lañ fi nommé moom pour ñu régler les solutions jusqu'à présent mënu feex ba régler ko day poser problème ba pare ba ba pare laaj sax da wax ju Alioune Sall rekk pré rekk président dafa am corona moom la woote mu am ko fi fekkee fekkee population dafa am corona moo tax ko population moo nekkul ci yoon mais kon la ma Alioune Sall kon xanaa kon moom nekkul ci yoon. non pas population non li population bi il a toujours déglu population bi il a toujours respecté ses les mesures mais am na problème population bi dafa amul kenn ku nekk si ginnaam ko jàppale léegi fii Sénégal baaji bi chaque fois moo ko comme am la baadoole li ñuy dëggate li ñuy rek mais ñi nga xamante ne ñoo waroon jël seen xaalis wala jël ji wala jël seen matuwaay def ko si corona bu ñu ko si defoon barki yàlla corona bi génn na Sénégal ils n'ont rien foutu amuñu dara luñ def barki yàlla xoola bu baax Sénégal ñaari milliardaires ñoo fi ànd pour pour ñu dajale cent milliards il a fallu que ñu toog plus de un mois di ko lijjanti te bu ñu ko lijjanti mi ngi ne sàcc nañ ko kenn gis ko loolu aussi di la vérité barki yàlla nañu wax dëgg mais problème mooy dañuy taxaw bëgg sonal nit ñi léegi léegi lu mu defee rek baadoole la ñuy taxaw di sonal ne non non baadoole ñoo war a def lii baadoole ñoo war a def lii parce que ñun ñun ñun la ñëpp teg bët ñun ñoo yorul tous mais ñu yor moo ni yor xaalis moo tax corona bi corona bi dal la fii feer borom alal la waxatuma état de même bu ñuy waxante dëgg sax feer barki rasulaay nañu wër ñu xool xool nañ dem lim 3000 xaw ma 4000 cas la nañu xool 4000 cas yi moitié bi yëpp ñu ay lan lañ suñu xaalis la jël di ko fooy di du ñu sonal ba pare ñu fat chaque instant ñu ne noonu a ko def chaque jour ñu ne noonu yéen baa doole yéen ko def chaque jour lu mu dexew ñun la population bi la ñuy jàpp fay la ko 6000 yor nga gis barki rasulaay du si mut xam avant corona wóor na arrêté ko waaye taxaw si xool mu ne ne ko bu ma fonton takkul seen dur defal la tamit wax téléphone te yow bu ma ko defoon suba wala gannaaw ñu fay loolu douze mille bu ñu sonal chaque jour ñun la chaque jour ñun ñoo fautif amul kenn kuy fautif état day def lu état day lu mu di def baax na léegi ñun lu mu def ñun ñoo ñun ñoo bon léegi te a ñun ñoo ko fal suñu xaalis li barke suñu xaalis lañ leen di fay ñun on leur paye li na yàlla tey ku fi toog fayoo courant wala fayoo ndox te suñu suñu fay suñu xaalis mooy dem si ñoom lu leen fi toog suñu xaalis la yow ñedoon la état état lu mu leb lépp ba mu dalee leb ba léegi est-ce que yow gis-gis dara taxaaj mi ngi si ñoom ñoo koy jóg. te suñu tur lañ ko leb suñu tur lañ ko leb turu Sénégal turu population Sénégal dañuy tur ne population Sénégal moo amee état lii te yow war na yow xaalis bi xamul fu ñu ko dugal ñoom xëy si ba tey ne la non benn terre lañ defar ah 200 milliards 200 milliards yoo xam ne dina yow yow yow amul la njëriñ décision yi état bi jël moom garaaw na quoi waxal mos. man man mesure mesure d'assouplissement yu état bi teg nii nii nii nii que état bi dafa wane dafa wane ay manquement yoo xamante ni dafa bari bari tellement que jusqu'à présent mënuñ fexe mënuñ fexe ba régler ko ñoom état bi jusqu'à présent mënuñ fexe ba régler les manquements yoo xamante am na Sénégal te booy dinañ jël booy booy dinañ jóg. ndaxte booy ñoom seen bët ñoom moom moom la xoolee xam nañ situation bi doxee xam nañ dëkk bi di doxee jusqu'à présent ñoom ñu ngi toog ñu ngi ñu ngi dans l'internet ñu ngi ñu ngi xool ay kii ñu ngi booy dañoo yeewu léegi dara kaay ma wax dara par rapport li ngay wax ni jom mhm. gars yi dañu foog ne politiciens yi ñun suñu politique politiciens ñoom ñëpp lay wax ba pare wane nañ tamit ñun suñu société civile bi di wax société civile nekk ñu société civile tous parce kenn ku ci posé benn wala mu génn wax wala mu génn sensibiliser wala comprendre ay dilu état la ak li ci jot xaalis la rek ak li ci jot am yëpp mais bu njëkk ba ñun suñu parents yi dañ ñëwoon fekk fii bi nga xamante ne fenn rek li mënoon am information yi nga xamante ne moom lañu am bi xam la muy muy chaîne nationale bi fi nekkoon léegi chaîne nationale jël sax def ko chaîne état ñoom affaire état la ñuy wax affaire nation moom seen yoon newu si comprendre la mais ñoom dañu comprendre mu ñun dañu am génération boo xamante ne tey ki ngay gis muy jaay këriñ ci ci ci kii bi mu tudd euh, ci ci ci jàllo këriñ bi nga gis muy jaay këriñ comprendre nga peut-être moom li mu xam ak li mu jàng ak li mu maîtriser mi premier ministre bi sax maîtriser wu ko. loolu c'est que li nga wax comprendre la gars yi dañuy yeewu ba pare dañuy gëstu xam la sa biir nekk toog information bi di la fekk. loolu li nga wax ni dëgg bu dëgg bu leer nañ ne ndaxte ndaxte jeunes yi koo ci gis mu ngi yokk ne mën na mën na am information bu mu soxla ci ci àdduna te da koy am en temps en heure. tey jii nii booy kenn ku ci nekk xam nga lu xew ci Sénégal su état bi defee lu lu yoon xam nañ su état xam ne defu lu mu waroon def defu ko gars yi xam nañ tey jii nii dafa loolu donnée boo xamante ne donnée bu capital la majeure partie population population moyenne de la euh, du Sénégal xam nga ñaata la dix dix-neuf ans la c'est-à-dire que ñun ñun jeunes yi jeunes yi ñoo ñoo fi ëpp la oh. population est jeune. jeune bu baax dix-neuf ans imaginez dix-neuf ans nga nga booy boo xamante ne moo xam ne lu état bi di doxee xam ne léegi léegi lii su état xaalis boo waroon dugg xam ne ni mu war a duggee nan nan la koy duggee fan la ko war a kii gars yi am na ñu koy informé yow nga bëgg jusqu'à présent nga comme ni ñu ni ngay diriger loolu dafa war a jeex am na yenn yoo xamante ne ni état bi da cee war a da cee war a delluwaat mesure d'assou d'assouplissement yi ne commencement bi la rek mais day gën di tar état bi day gën di day gën di am problème tant que changé wu tant que jëlu jëlu ay décisions yoo xamante ne yu leer nañu la di ko jëmale ci population xool la population yi bëgg mu koy dox du ci lii du ci génn day gën di kii rek gooy gars yi dañ toog dañ ñaxtu te problème rek lay indi. te problème mooy dama ko bugg nag fekkee moom moom benn saa moom am na ay am na ay solution yoo xamante ne leer na mu jóg mu wax ak mu wax ak nit ñi. mu mu dimbale nit ñi. mu mu xam mu xam les les les les ah. les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. mais soo jëlee ay yoo xamante ne ay politiciens yi nga politique politique lii day lii la la a wax man sànq xam nga boo leen boo déggee man sama analyse xam nga ban angle laa ko yóbbu dama ne leen comme état essient ay déggulum ko fi dañ ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko wóolu teg ko fi essient ay la pour mu diriger ñu essient ay déggulum la coronavirus am état bi ji am ay mesures yoo xamante ne da kaa jël ñun am d'accord duñ ci mesures wa wax nañ est-ce que depuis coronavirus ba mu ba mu amee ba léegi est-ce ay déggum la gars yi ngay dégg ñu ngi aalu ñu ngi aalu pour état bi def jël jël yenn assouplissement yi yenn mesures yi mu mu mu wàññi ko te état bi bii moo nekk presque troisième mesure boo xamante ne mu ngi koy wàññi mais est-ce que mus na population bi mus na mus na ko mus na passer par par la violence. musul am est ay déggum la. man loolu laay wax man man damay appeler la population que la wax ne comme li ngeen wax sànq gis nga instant yi dañoo tollatul foo xamante ne nekk di wàcc si tali yi di xeex di genre yooyu noonu et instant dëkk bi dafa changé instant yi déggum la technologie yi dañ fi bëri site internet yi dañ fi bëri télévision yaa ngi fi télévision yi à part RTS xam nga lu mu la amul benn télé télévision boo dem fii nii gars yi dañu lay ibbil seen seen seen porte yi nga ñëw dugg essayé dégg la gars ay émission yoo xamante ne dañuy clash état dañuy def lu nekk essayé dégg man dama ne la essayé population bi ñoom dañoo dañoo war a dépasser foofu noonu man essayé du xam nga du moment marche parce que regroupement dañ koy tere ak genre yooyu noonu essayé dégg mais dama ne la fu ñu toll am nañ droit ñu ne état bi essayé dégg la mesure yu mu jël mu assouplir ko mais waru ko waru ko passer par la violence man nag man boo gisee la moo tax ma blâmer état bi état bi nga xamante ne ñun moom lañ dénk suñu sécurité est-ce que ay déggum la benn minorité ay jeunes génn est-ce que ay déggum manifester rek pour pour pour pour parce que ñun woon lii nii lañ bëgg demee si ëllëg si nga ñëw dégg mesures mu doon loo xamante ne dañuy man personnellement loolu laa lax man loolu daf may tiital ki nga xamante moom laa dénk sama kaaraange essient déggul lax ñaari nit taxaw fële man ki nga xamante ne moom laa lu wax nii lu wax nii lu bu leer nañ la waaw c'est que état war warto warto reculer ci yenn ci yenn ci yenn mesures yi yenn yenn yenn yoo xamante ne non li wax ni dama cee ah, d'accord ah, yow dama cee d'accord ak yow dama cee d'accord ak yow mais mais mais alal lu ne lañ ko jox uh-huh. état luñ pouvoir yi nga xamante ne ni ak capacité yi nga xamante ne ni jox nañ ko état bi pour garantir ñun suñu sécurité est ay dégg mu am ñaari gox ñetti gox yoo xamante ne dañoo génn xaw a aaru taal ay pono kese kese kese suba nga xëy est-ce que ay dégg la ñu jël mesures yi defee ko defee ko yeneen mais bàyyi bu nu waxantee dëgg te yàlla tax feebar fu mu toll nii laa bëgg a waxee yow moom mooy population bi si jëm boppam dafa jàppalewul état comprendre gis nga état bu jëlee ay décision état bi dafa jël ay décision décision yoo xamante ne ni euh, euh, pour pour le bien-être pour pour pour pour bien-être la comprendre nga sànq yaa ngi koy wax mu dem ba nga xamante ne am na ñoo xamante ne gëmatuñu feebar bi am na ñoo xamante ne takkatuñu masque est-ce ay déggum la mais minorité boobu noonu ñooñu noonu est-ce ay déggum la génn si mbedd taxaw di di di di di taale ay pono xam nga di di di di di lax ay ay ay ay ay ay ay ay. baare yoon yeeg genre yooyu noonu mu tax nga xëy si ëllëg si rek dégg état bi décision ak mesure yi nga xamante ne ni woon man sama classe gi essant yi ngi doon wax mu état bi instant yi nii pour buggee bu buggee canaliser feebar bi dëgg dëgg dëgg mesure da a gën a yokk nga gis benn minorité génn rek état bi revenir à sa donc man je me est man sax changer nationalité jotagul waaw man pour man pour man ah, loolu lu erreur xam nga état dafay déglu population am tamit quoi parce que moom li muy def yëpp pour population am nit ki doo ko wax nii laa lay defalee xam na mais da nga laaj nan nga bëgg ma defalee la quoi population bi loolu lañ bëgg c'est normal mu def ko au contraire état bi moom moo def erreur. fii état bi njëkkee def erreur xam nga mooy fan pour man est-ce que seetlu ngeen ne coow lu yëpp mu ngi commencé jour bi état bi waxee damay waaj ibbi école yi premier jour bi mu njëkkee joxe date na bi ibbi école yi si la plaignants yi yëpp commencé comprendre si la transporteurs yi commencé aalu imaam yi di aalu dañuy ibbi jumaa ñun tamit dañuy def li dañuy def waa Matam njëkk génn ñoom tamit dañoo sonn parce que foofu dafa tàng. mënuñu woor ba ngoon jot xam na dugg seen kër yi amuñu kaa ñu leen di tëj ay vingt heures duñu mën a génn xam nga te mooy li ma doon wax commencement bi xam na am si benn émission maa ngi koy wax maa naan ko maa naan la gis nga fii du Europe quoi comprendre nga gis nga suñu demee si tàngoor bi xam nga tey pour ñëpp di daje si benn kër rek nekk foofu noonu à partir de vingt ñëpp duggandoo si biir kër yi parce que fii nii li ma doon wax problème kii bi euh, couvre-feu bi état bi daf ko waroon def nii quoi. jarul woon ay vingt heures bu kenn génn mais au contraire moment boobu la waroon organiser affaire parce que man su ma xoolee état bi ñetti problème yi la am xam nga observation mooy observer nii communication xam surtout organiser affaire bi bi am na au lieu que nga naan gars yi vingt heures dugg leen seen biir kër mooy li ma la waxoon rek ñu def yenn affaire yi par rotation xam nga ñii bu ñu liggéeyee ba heure bi wàcc dem ñibbi ñeneen ñi liggéey heure bi ba fajar xam nga. man benn saa man benn saa kii laay wax rek mm, kenn rek laa xam ne nii feebar bi bett na bett na Sénégal de mais kenn kenn kenn rek ci xalif général yi mooy Mouride moom moo ci jël décision boo xamante ne ni ba mu commencé ba léegi ba ba ba muy jeex ba ba muy kii moom moom moom moom moom moom vraiment vraiment vraiment yow mun nga taxaw ne duut sa baaraam ne kii nii lii nii lu mu wax nii lii moom mooy yoon lu mu wax nii lii mooy yoon li mu wax lii mooy yoon ba feebar bu commencé 2 mars la affaire bi dugg mu ne déeta waaye mu commencé mu commencé toog déglu déglu état état état wax commencé mu xam ne ne nii nii état bi nu mu ñuy doxalee nii nii moom ak ak moom nu mu ko gisee doxalin bi du natt natt jaar yoon mu jël mu jël deux cent millions teg ko ci taal bi dimbalee ko état ñu ne feebar bi am na am na Touba mu ay ay famille commencé commencé ñu jël leen naan ñi dañu am ay ay cas corona conso googu lan la def dafa génnee ay ay dund ay ay ceeb ah, ay ay duulin ay ay kii dimbalee ko famille yoo xamante ne dañ leen nekk en quarantaine ñu ne déeta waay ñu ne ñu ne dañuy dañuy fermer kii mu ne léegi na nañ nañ sol ay masque na nañ sol ay ay ay gants bopp ay ay kii protection pour mun a dem dem dem julli juma ah ñu ne déeta waay ba ba léegi ba léegi ba léegi jusqu'à présent naa affaire bi ba mu amee euh, jeunes yi commencé di kii di di kii lan dafa génn dafa génn aalu dal seen kaw wax leen ni lii nag lii li ngeen def nii teew leen ko fee ndaxte ndaxte fii nii dëkk bii Touba la da ah, ngeen ko da ngeen ko war a teg jaarale ko ci yoon xam nga yooyu noonu ay mesures yoo xamante ne sans waaye teg na ko suñ suñ demee ba suñu xalif bi di dem bay jël ay mesures yoo xamante ne ñun les populations du Sénégal dañ ciy gis suñu bopp alors que suñu état bii nii moom moom lañ fi teg moom lañ fi nommé moom pour ñu régler les solutions jusqu'à présent mënu feex ba régler ko day causer problème ba pare ba pare laaj wax ju am solo da taxaw ne da nga nga population bi barki yàlla lu ko waaye ko fekkee fekkee population dafa am corona moo tax population moo nekkul ci yoon mais kon la ma Alioune Sall kon xanaa kon moom nekkul ci yoon. non pas population bi. non mais dem non non non dama la xam ne population bi il a toujours déglu population bi il a toujours respecté ses les mesures mais am na problème population bi dafa amul kenn ku nekk si ginnaawam ku ko jàppale. léegi fii Sénégal baaji bi chaque fois moo ko comme am la baadoole li ñuy dëggate rek barki yàlla baadoole li ñuy dëggate rek mais ñi nga xamante ne ñoo waroon jël seen xaalis wala jël wala jël seen matuwaay def ko si corona bu ñu ko si defoon barki yàlla corona bi génn na Sénégal ils n'ont rien foutu amuñu dara luñ def barki yàlla xoolal bu baax Sénégal ñenn milliardaires ñoo fi ànd ak pour pour ñu dajale cent milliards il a fallu que ñu toog plus de un mois di ko lijjanti te bu ñu ko ngi ne sàcc nañ ko kenn gis ko loolu on dit la vérité barki yàlla nañu wax dëgg mais problème mooy dañuy taxaw bëgg sonal nit ñi léegi lu mu defee rek baadoole la ñuy taxaw di sonal ne non ñoo war a def lii baadoole ñoo war a def lii parce que ñun ñun ñun la ñëpp teg bët ñun ñoo yorul tous mais ñu yor moon yi yor xaalis moo tax corona soo xoolee ñu mu ëpp ñu muy ëpp ñu muy dal borom alal la fii feer borom alal la te borom alal ñoom lay dal barki rasulaay nañu wër ñu xool xool nañ dem lim 3000 xaw ma 4000 cas la ñu am nañu xool 4000 cas yi bi yëpp ñu ay lan lañ suñu xaalis li ñuy jël di ko fooy di ñu sonal ba pare bëgg ñu fat chaque instant ñu ne noonu yéen ko def chaque jour ñu ne noonu yéen baa doole yéen ko def chaque jour lu mu xew ñun la population bi la ñuy jàpp fay la ko siibir yow ngay yor nga gis taximaan bu taxaw solul mag solul du xaj du benn chaque yow yow mesure yi ñuy def nii barki rasulaay Sénégal mesure bu ñu fi mën di teg borom alal bi moo koy dara du man gis naa alkaati barki yàlla bu bu arrêté xam avant corona wóor na arrêté ko waaye taxaw si xool mu ne mu ne ko bu ma fonton takkul seen dur la tamit wax téléphone te yow bu ma defoon ñu fay ñu sonal chaque ñun la chaque jour ñun ñoo fautif amul kenn kuy fautif état day def lu état day état lu mu di na léegi ñun lu def ñun ñoo ñun ñoo bon léegi te pourtant ñun ñoo ko fal suñu xaalis li barke suñu xaalis lañ leen di fay ñun on leur pay li wóor na yàlla tey ku fi toog fayoo courant wala fayoo ndox te suñu fi ñu suñu xaalis mooy dem si ñoom lu leen fi toogal suñu xaalis la yow ñedoon la état état lu mu leb lépp ba mu dalee leb ba léegi est gis-gis ñoom ko leb suñu tur lañ ko leb turu Sénégal turu population Sénégal dañuy tur ñun Sénégal moo amee état lii te yow wóor na yow xaalis bi xamul ñu ko dugal ñëw xëy si ba la non benn terre lañ defar ah 200 milliards 200 milliards yoo xam ne dina yow yow yow amul la njëriñ décision yu état bi jël moom garaaw na quoi waxal mos. mesure mesure d'assouplissement yu état bi teg nii nii nii nii que état bi dafa wane dafa wane ay manquement yu xamante ni dafa bari bari tellement que jusqu'à présent mënuñ fexe mënuñ fexe ba régler ko ñoom état bi jusqu'à présent mënuñ fexe ba régler les manquements yoo xamante ne am na Sénégal te booy dinañ jël booy booy dinañ jóg. ndaxte booy ñoom seen bët ñoom moom moom la ñuy xoolee xam nañ situation bi doxee xam nañ ni dëkk bi di doxee jusqu'à présent ñoom ñu ngi toog ñu ngi ñu ngi dans l'internet ñu ngi xool ay kii ñu ngi booy dañoo yeewu léegi dara kaay ma wax dara par rapport ak li ngay wax ni jom mm-hmm. gars dañu foog ne politiciens yi ñun suñu politique politiciens ñoom ñëpp laa wax ba pare wane nañ tamit ñun suñu société civile bi di wax société civile nekk ñu société civile tous parce que depuis problème gisuloo ci kenn ku ci posé benn acte wala mu génn wax wala mu génn sensibiliser wala mu génn def dara comprendre ay dible daal ak li ci jot am yëpp mais bu njëkk ba ñun suñu parents yi dañ ñëwoon fekk fii bi nga xamante ne fenn rek la ñu mënoon am information yi nga xamante ne moom la ñu am muy chaîne chaîne xam la muy muy chaîne nationale bi fi nekkoon léegi chaîne nationale bi jël nañ ko sax def ko chaîne état ñoom affaire état rek la ñuy wax affaire nation moom seen yoon newu si comprendre la mais ñoom dañu comprendre mu dañu am génération boo xamante ne tey ki ngay gis muy jaay këriñ ci ci kii lu mu tudd euh, ci ci ci jàllo këriñ bi nga gis muy jaay këriñ comprendre nga peut-être moom li mu xam ak li mu jàng ak li mu maîtriser mi premier ministre bi sax maîtriser wu loolu c'est que li nga wax comprendre la gars yi dañuy yeew ba pare dañuy gëstu xam la sa biir néeg ngay toog information bi dina fa fekk loolu c'est li nga wax ni dëgg bu dëgg bu ndaxte ndaxte jeunes yi koo ci gis mu ngi yokk sa portable boo xamante ne mun na mun na am information bu mu soxla ci ci àdduna bi te da koy am en temps et en heure tey jii ni booy kenn ku ci nekk xam nga lu xew ci Sénégal su état bi defee luy luy yoon xam nañ su état xam ne defu lu mu waroon def defu ko gars yi xam nañ tey jii nii dafa loolu donnée boo xamante ne donnée bu capital la majeure partie population population moyenne de la euh, du Sénégal xam nga ñaata la dix dix neuf ans la c'est-à-dire que ñun ñun jeunes yi jeunes yi ñoo fi ëpp. la population est jeune. bu baax dix imagine dix nga nga booy boo xamante ne moo xam ne xam na lu état bi di doxee xam na léegi léegi lii su xaalis bi waroon dugg xam na ni mu war a duggee nan nan la koy duggee fan la ko war a kii gars am na ñu koy informer yow comme ni ñu ni ngay loolu dafa war a jeex am na yenn yoo xamante ne ni état bi da cee war a da cee war a delluwaat mesure d'assou d'assouplissement yi bi la rek mais day gën di tar état bi day gën di am problème tant que changé wu jëlu jëlu ay décisions yoo xamante ne yu leer nañu la di ko jëmale ci population xool la population yi bëgg mu koy dox du ci lii du ci génn day gën di kii rek gooy gars yi dañ toog dañ ñaxtu te problème rek lay indi dama ko bugg nag fekkee moom moom benn saa moom am na ay am na ay solution yoo xamante ne leer na mu jóg mu wax ak mu wax ak nit ñi mu mu dimbale nit ñi mu xam ñoo les les les les hommes qu'il faut à la place qu'il mais soo jëlee ay yoo xamante ne ay politiciens yi tout nga man laa a wax man sànq xam nga boo leen boo boo déggee man sama analyse xam nga ban angle laa ko yóbbu hmm. dañ ko fi dañ ko teg hmm. état ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko wóolu teg ko fi essient yi déggul pour mu diriger ñu essient yi déggul la coronavirus am état bi ji am ay mesures yoo xamante ne da kaa jël ñun am d'accord duñ ci mesures yi wa wax nañ est-ce que depuis coronavirus ba mu ba mu amee ba léegi essient ay déggum la gars yi da ngay dégg ñu ngi aalu ñu ngi aalu pour état bi def jël jël yenn assouplissement yi yenn mesures yi mu mu mu wàññi ko te état bi bii moo nekk presque troisième mesure boo xamante ne mu ngi koy wàññi mais est-ce que mus population bi mus na mus na ko mus na passer par par la violence su la am essient déggum la man loolu laay wax man man damay appeler la population que la wax ne comme li ngeen wax sànq gis nga instant yi dañoo tollatul foo xamante ne dañuy nekk di wàcc si tali yi di xeex di genre yooyu noonu et instant yi nit dëkk bi dafa changé instant yi déggum la technologie yi dañ fi bëri site internet yi dañ fi bëri télévision yaa ngi fi télévision yi à part RTS xam nga lu la amul benn télé télévision boo dem fii nii gars yi dañ lay ibbil seen seen seen porte yi nga ñëw dugg essayé déglu gars yi def ay émission yoo xamante ne dañuy clash état dañuy def lu nekk essayé dégg man dama ne la essayé population bi ñoom dañoo dañoo war a dépassé foofu noonu man essayé du xam nga du moment marche parce que regroupement dañ koy tere ak genre yooyu noonu essayé dégg mais dama ne la fu ñu toll am nañ droit ñu ne état bi essayé dégg la mesure yi mu jël mu assouplir ko mais waru ko waru ko passer par la violence man nag ma boo gisee la moo tax ma blâmer état bi état bi nga xamante ne ñun lañ dénk suñu sécurité est-ce que yaa ngi déggum la benn minorité ay jeunes génn est-ce que yaa ngi déggum manifester rek pour pour pour pour parce que ñun woon lii nii lañ bëgg mu demee si ëllëg si nga ñëw dégg mesures yi mu doon loo xamante ne dañu man personnellement loolu laa la man ki nga xamante moom laa dénk sama kaaraange essayé déggul la ñaari nit taxaw fële rek man ki nga xamante ne ni moom laa dénk wax nii lu wax nii dëgg bu leer nañ la waaw c'est que état war warto warto reculer ci yenn ci yenn ci yenn mesures yi yenn yenn yenn yoo xamante ne wax ni li dama cee d'accord ak yow dama cee d'accord ak yow dama cee d'accord ak yow mais mais mais xaaral lu ne lañ ko jox <laughs> état luñ lu pouvoir yi nga xamante ne ni ak capacité yi nga xamante ne ni jox nañ ko état bi pour garantir ñun suñu sécurité est-ce que ay dégg mu am ñaari gox ñetti gox yoo xamante ne dañoo génn xaw a aaru taal ay pono kese kese kese suba nga xëy est-ce que ay dégg la ñu jël mesures yi defee ko defee ko yeneen mais bàyyi bu nu waxantee dëgg te yàlla tax feebar fu mu toll nii jàpp nañ état bi war na mun a accepter lépp lépp lépp lépp lépp ba mu des mu mu ubbiwaat les transports interurbains sans organisation. sans organisation man loolu laa la mais mais état d'urgence bi état d'urgence bi ak couvre-feu bi mais ma bi ak couvre-feu bi affaire bi balaa moo jeex jour bu mu jeexee jour boobu la ko état bi prolongé comprendre la léegi couvre-feu bi ba mu jeexee toog nañ lu mot ay trois jours du déglu eh, population bi patient nañ de. toog nañ trois jours di déglu ndax waa ji day yokk heure bi wala day wàññi heure bi waa ji na nemm rek parce que boobu intéressé wu ko maanaam concerné wu ko directement boobu population bi la concerné directement te boo xoolee état bi si boppam état bi tey Macky Sall mi nekk fii suñu njiitu réew ak ku mu mënti doon ñoom ñëpp université Cheikh Anta dem nañ ba comprendre ne système u Sénégal bi ni muy doxee boo soxlawee dara amuloo ay négocier ay envoyé message ay dem si kii mu arrangé du ko faj taal pono moo koy faj cest à ñoom loolu la ñu def ba yegg si fi ñu yegg si loolu lañ leen di def man rafetlu wu ma ko de mais man rafetlu wu ma ko de non même ma daaneel balaa ñu maa jël balaa ñu maa jël si balaa ñu yàq ñu yàq woo gars yi pour ñu taal pono defal ndànk li may wax important balaa gars naan maa yàq gars ñu taal pono dama ne la xam nga parfois gars yi dañ koy wax ma koy contre mais tamit dafa am quoi xam nit ki li nga nàmp loolu dañ koy gëx comprendre nga fi état bi si boppam ñoom ñoo comprendre loolu bañ bëggee Ablaye Wade jóge fi lii leen doon def lu gën a garaaw li xew lañ doon def te ñoom xam nañ ne lii nii xam nga yaay wax benn minorité moom moo génn comprendre mais da ngay fàtte ni premier jour bi xam nga benn dëkk la woon quoi Touba kese moo génnoon xam nga deuxième jour bi ay quatre dëkk génn cinq dëkk génn xam nga ñii di taal fii ñii di taal fii xam nga su su su teelul woon jël affaire yi bu génnul loon di wàccee waat xam nga maanaam xaw a wàññi affaire bi tuuti. xam nga troisième jour bi dafa naroon gën a garaaw quoi. léegi man léegi man même tur ma toll foofu xam nga xam bi lan moo gën a garaaw violence bi lan moo gën a garaaw bu njëkk ba Dakar moom moo doon commencé région yi doo doo ko commencé. Mm-hmm. mais léegi région yi ñoo commencé Dakar Dakar mujjee. ça veut dire quoi c'est-à-dire y y a une prise de conscience boo xamante ne bu nekk ci bu nekk ci biir peuple bi bu nekk ci ci ci biir peuple boo xamante ne gars yi dañoo mûr dañoo xam ah. les informations dañoo toog di ko di ko di ko déglu ce ce n'est plus Dakar moom mooy moom mooy diriger Dakar moom mooy diriger yenn yenn kii mais nekk léegi Dakar euh, Dakar n'est pas le Sénégal comme ni ma ko mën a waxee. Dakar n'est plus maintenant le Sénégal boo xamante ne pôle bo information boo xam ne ko traité fii ba pare jox ko gars yi ce n'est plus maintenant le cas gars am nañ information bu baax boo xamante ne ne mu mu ngi ci mu ngi ci nit ñi te nañ ko dañ ko ñaxtu à la kulli àll mais le problème en est dafa am lu xamante ne dafa dafa xew c'est que état bii nii mu def nii nii. mesure d'assouplissement yi nii ñëpp dañ cee am na ñoo xamante ne nag feebar bi mu ngi ni mu ngi ni taxaw présent ñu koy dund ba pare yow nga def ay ay mesures yoo ne ne seen tey jii ni dafa indi ay failles yoo xamante ne gars yëpp a ci teg seen dafa indi ay failles yoo xamante ne ñëpp a ci teg ba tax na nag comme que ñëpp a ci teg seen bët ala kuli ala koy gis xam nga tax Moussa parfois mu am raison malgré li muy wax yu bëri ça veut dire man xam nga lan laa mënul comprendre par rapport ak kii assouplissement ñu mënti lool saa état dañ naan ko instant bii nii vingt heures nga wax ñu tëdd quoi vingt heures mënul duñ ko tëdd dañuy génn ba vingt trois heures moom au mun la xoolal waa d' accord naa vingt trois heures bi kese de mais boobu da si profité bàyyi waale affaire yu bëri waa léegi garaaw may naa leen vingt trois heures dem leen football yi leen def lii dem leen def lii dem leen def lii dem leen def xam nga ba yaa ngi naan booy lu tax ñu génn comme am la nga dëgg la quoi booy war ñoo génn Sénégal war ñoo génn mais nga état bi moo commencé tàmmaloo moo commencé tàmmaloo booy loo xamante ne xam la ça va lui coûter très cher bu amul sens même tout ba am yeegeen ba am yeeg xam lu tax ma wax loolu gis nga ba ñuy bàyyi jumaa yi li ñu waxoon ñoom ba mu waaye ba muy bàyyi jumaa ji la la wax Aliou Ndiaye dafa ne carrément dañu ko bàyyi mais dañ leen jox ay gel jox leen ay gan jox leen ay max wax ma benn jumaa bu bu am bu état jox dara ngir yàlla ak yonent bi wër na nañu c'est que ni ñëw à la réalité ni ñëw ñu xool état la def booba léegi lan la def ban affaire la def bi nga xamante ne au moins population dinaan alhamdulilah du jumaa de du jumaa bi kese de même école yi a xam ne loolu si gën a tuuti léegi nag benn affaire am yi nga booy booy plateau fu ne wax nañ ko suñu émission bi wax nañ ko fi du benn du ñaar comme la mais du def parce que da waxoon ñoom duñ la déglu ñoom seen yoon nekku si ñoom fii ak ñoom ñi ngi à l'aise ñoom su leen neexee su leen neexee toog un mois duñu génn seen salaire mu ngi leen di fekk si ngi am xaalis ñu ngi dund mais ñun nga xamante ne ñun wooy bas peuple ñun la amuñu lu ñuy dundee am la yenn heure yi xam ne boo ci naree tëj wala nga nar cee sonal bu ñu comme te problème mooy te problème mooy te problème mooy fekkee yaa ngi wax ñu ngi lay dégg te faalew ñu la ngay wax ak ñoom ñu lay dégg te faalew ñu la mais bu yàggee nga génn taal pëna ah, bu yàggee nga créer violence parce que da nga xam ne kii fu mu jëm ak yow neexul te état moo gën a xam ne fu mu jëlee population bi neexul xam li problème suñu xaalis bi ko jël séddale ko population bi suñu bëggee bi am jàmm ñëpp neex il est temps xam li problème Sénégal am na xaalis am na xaalis parce que xam li problème bi barki non mais nañu wax dëgg mais mais c'est mi si ñoom fii da ngay xaalis xoolal du sa xaalis état bi bu gars yi cotisé la gars yi ñoo cotisé sa xaalis jox ko de ma xam laa richesse Sénégal richesse Sénégal ci boppam xaalis Sénégal lu mu am ci xaalis Sénégal am na pétrole am na gaz am na zircon xam la lépp lañ am. mais léegi la moo tax léegi ñun mun exemple yow kër boo dem pour nga gis koy fekk cent cinquante mille problème la te yu te sociaux yëpp ñu ngi def moom kon léegi ñun loolu ba lan lañ jëriñ. te lu ñu wax sénégalais nanguwul liggéey. parce que ah, fii moom génne fii nii marchand ambulant yi ngay gis ñu koy ñàkkante agent promotion yi ngay ñàkkante. marchand ambulant ñu ngi leen di dëgg de ñu ngi leen di dàq bu nekk di jaar ci géej bi di bugg dee ndax ndax am nañu liggéey loolu ñëwoon ko wax xam lu gën a gaaw temps yi dama wër lu xew li ba siis marchand ambulant ñu ngi leen di dëgg de ne leen jóge leen fi ñun ñoo koy wax borom alal yi comme am la ne noonu dañuy encombré tali bi euh, chauffeur clando sama genre ñu ngi leen di pousse ne jóge leen fi indi ay policiers chaque instant pour ñu jàppale ne la parce que ñoom ñooy encombré ñooy encombré parce que ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñu ngi yor suñu xaalis di dund aisément nekk si clim ba pare nee nañ bëgguñu ñu tànqal leen léegi ñoom dañu ne benn maas xam nga léegi la moo gën a lekk suñu xaar doyatul ne bëggatuñu gis barki yàlla yoo xam fa lañ ndox nga wóor na yàlla nga fa lañ toll population eh laay laay barki yàlla ñii fa lañ toll population laay benn mois barki rasulaay ñii ñii ni ñu jëm nii nguur gi ni jëm ak ni ñuy laay fekk ñun dañ benn mois barki rasulaay dañuy taxaw ne képp ku fi képp kuy baadoola na nga ñibbi dëkk ba képp ku dëkkul fii na nga ñibbi dëkk ba. fa lañ jëm man man man bii daay fa lañ jëm. man man lañ jëm bii kii la bëgg a wax comprendre nga man su ma déggee yow yow yow yow ni man bu je me gis nga dama ne la gis nga état saa déglu la ñëwul rek ne ne furux man maay état comprendre nga gouvernement bi ñëwuñu rek ne furux ne man maa leen di jiite ñun ñoo leen fa teg. gis nga ay déggum la te gis nga état boo gisee la moo ñu teg leen fa seeb xam nga ñu pour ñu mettre leen dans de très bonnes conditions c'est parce que bëgguñu li nga xamante ne moom lañ leen dénk ñu caxat caxatee ko d'accord mais yow yow boo bëggee taxaw di défendre essayant déggum la occupation anarchique yi nga xamante ne moom mooy am si tali yeeg yooyu noonu mais c'est scandaleux. mais tànn la rek mais may may ma yeggali. benn moo rek benn benn non may may ma yeggali. benn moo laay tontu ko laaj ñaata yoon ngay mu doon sa xarit. comme am la nga dégg ko sa yëf ko état noonu lay def ak ñun parce que benn affaire non def na yow def na def na même tudd yow xam nga yaa ngi naan anarchique ainsi de suite xam la man jëlu ñuy tudd ay mots ay mots tubaab man comprendre mo xam laa la bëgg xamal xam laa la bëgg xamal état bu defoon lu mu def population am liggéey bu ñu a liggéey duñu encombré tali duñu encombré mbedd kenn kenn neex si àdduna nga yor ay marchand ambulant nga yëwër taxaw di taxaw naan ay waajaay ay soo sañoon si kilim ngay dugg wala si wala fu neex ngay dugg di liggéey di fekk bi ñëpp benn benn chose mooy kenn neexul deexul kenn nga doon chauffeur kalando di daw di fekk ñu ay saafara am neexul kenn boo sooy si si si politique am na mais état moo ci population li ngeen di wax nii état li ngeen di wax nii un tiers un tiers état un tiers de sa population waaw defal daal waaw may ko mu wax mu mën a comprendre Moussa instant yi nii bu ma comprendre xam nga Moussa lan la lan la ñuy jéem a faire comprendre gis nga Moussa l'état n'a pas travaillé c'est ça que je fais comprendre du cadre état bi travaillé wul du état du état du état bi travaillé wul gis nga Moussa instant yi nii yow su ma la déggee comme gis nga gis nga bind yi ñoo yemu comprendre nga yow boo bëggee koo xamante ne ni depuis moom ba muy nekk jeunesse am isaan déggum la mu ñëw avant avant avant avant juddoo isaan dégg mu ñëw nekk dans une famille boo xamante ne ni xam nga famille bu aisée la nekk comprendre ñëw jàng ba ay diplôme am diplôme am isaan déggum la nekk spécialiste ak ci domaine bi ñu dénk ko ak ñu dénk ko domaine boobu noonu mu yor xaalisam ak koo xamante ne ni isaan déggum la parce que nekkul fii ngay gis nii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp amul am na ñoo xamante ne ni. bugg nañ liggéey mais amuñu connaissance boo xamante ne wala jànguñu benn jàng boo xamante ne mun nañ leen dénk yenn yi nga pour pour loolu en parenthèse la woon rek mais pour revenir sur li nga xamante ne ñun man xam waxee man waxuma damay wax ci wàllum état essayé de pour défendre état man boo gisee la moo tax man dama njëkk a blâmer état xam nga nan laa ko blâmer essayé dégg dama ne ot état comme sànq li ma wax dama ne dañ ko jox ay jumtukaay jumtukaay yoo xamante ne essayé déggum la pour mu sàmmuñu la ñun essayé dégg mais comme Moussa moom ni muy waxee nii keneen bu ko waxee keneen bu ko waxee kon état bi ñun li nga xamante ne dégg nañ ko pour mu liggéeyee ñu ko si ay déglu lu mu munti def du ko gis man dama ne man du violence waratuñu toll si domaine violence dañoo war a dañoo war a ñëw dans dans dans le cadre pacifique dama ne la lu temps yi njëkk benn tere kese am nga xamante ne ne tere boobu mayu la possibilité nga dem foofu nga kaas li ngay kaas kenn du ko dégg. jamono jooju bañ fay toll isient déggulum la am nga droit nga taali pono nga xamante ne ne ot gars yi dinañ déplacer information yi di jàll mais fi ñu toll nii man su ma kaasee fii nii seen clic bii seen clic télé bu ñëpp di site la bu ñëpp di suivre su ma fi aalo tey génn gars yi dañ may gis nga def ko beneen site noonu nga def ko beneen site noonu gis nga ay déggum la tax gars yi léegi ak whatsapp yeeg technologie yooyu technologie yii nii yëpp gis nga ay déggum la gars yi tollatuñu foofu mais dama ne la état bi ñu dénk ko ñu dénk ko ñu suñu kaaraange fii nii yow donc di di wax leen ma ndax yéen nga xamante ne dañ ko tijjiwaat yéen vous êtes pour. waaw non Moussa may ma ngir ma expliqué la benn affaire ta mooy li ma la wax rek Moussa li mu wax mais parfois tamit xel da koy nangu quoi xam nga soo xoolee xam nga état bi dañ leen dénk sànq su ma su ma waxaatee ñoom fi ñu jaar ak population bi génnoon di talpone fi ñu jaar da ngay xam ne ñi ci ëpp benn la quoi lépp université la comprendre mu la université lañ lay tàggatee tàggat boo xamante ne da ngay comprendre ne suñu état bi et puis boo xoolee quatre-vingt-dix pour cent ñi nga ñi ñi ñi ñi ñi ñi jël méthode bi nga bi nga proposé nii dem ci internet bi wax pour ñu fekk la sa kër seppi la coppet yóbbu la dafa yomb quatre-vingt-dix pour cent ñi nekkoon ci kii bi yëpp di def comme ñun li ñuy def ni ñu ci bëri da ngay jékki-jékki di xëy ñu jàppale fekk la sa biir kër ne la comprendre xam nga mooy loolu quoi sabdi dafa dafa benn instant da xam ne dañu dem ba commencé di manquer liberté d'expression comprendre la nga seetlu benn affaire ne lii c'est pas normal maanaam yow dafa mel dañ la teg fii ñu lay mbugal rek di la mbugal di la mbugal ngay noppi soo kaasee ñu comprendre mais ça bu jotee amee quoi bu jotee amee bu problème amee fenn xam nga nga bugg a arranger ça da nga war a xool ki nga xamante ne moom moo ëpp doole boo xoolee ki nga xamante ne moom moo ëpp doole na wax ko dëgg quoi ne ko carrément yow mi yow lañ dénk doole bi yow lañ dénk alal bi yow lañ dénk di ni nga nekk di ko doxalee c'est pas normal comprendre après nga soogoo wax population bi bàyyi leen violence bi fajul dara quoi comprendre la mais yow bu fekkente ne population bi seetlu na benn affaire ni état bi day teg ay programme quoi wala mu ñëw expliqué la benn affaire ne la waaw génnee naa di xam nga budget Sénégal génnee naa tant de milliards xam nga pour lii pour lii pour lii pour lii pour lii yow nga bokk ci population bi nekk li ñuy wax ne moom lañ génnee li ñuy wax ne moom la ñuy def yëpp yow doo dox fenn ba dajeeg loolu foofu fenn doo ko gis doo gis ku ko gis xam nga lu mu munti doon mesures yi gars yi di jël ak financement yi di gars yi di def yi dañuy wax ne génn nañ somme bi ci télévision yi toog toog wax ko ci plateau télévision yow da naan man mais ministre bi toog di wax wala député bi toog di wax nii moom Sénégal bi mu nekk ndax man Sénégal boobu laa nekk parce que li ñu lay wax yëpp si budget bi moom lañ dégagé pour lii dégagé nañ tant de milliards pour lii yow doo dox ba gis ko doo dox ba gis ko ko gis sa di dire loolu day jur xam nga benn frustration ba pare population bi li gën a garaaw soo toogee nga nga nga employé méthode bi nga wax ni nga dem WhatsApp wax nga dem wax Facebook nga wax ñu fekk la fa jël la boo génnee manifesté wu la oto mbëkk la nga dee te du mujj fenn xam nga loolu dafa garaaw quoi. loo xamante ne am la mooy maanaam lu muy def nii. c'est que état bi ci boppam nekkul l'état n'est n'est pas un distributeur l'état n'est pas un distributeur te tey jii loolu lañu loolu la bugg bëgg a comprendre c'est c'est comme quoi que ne lii moom moom mooy yore affaire bi moom mooy yore nguur gi moom mooy yore appareil nguur gi lépp ci moom la nekk finance bi ci moom la nekk léegi moi je vais distribuer à qui veut l'entendre kenn ku ci nekk dama koy jox lu lu ma wala yelloo nangam na diviser pour mieux régner genre genre genre système boobu moom la moom la teg ci affaire corona diviser pour mieux régner dund bi mu ne la mu ne da da leen distribuer da leen jox ku nekk nangam nangam mais ñii duñu am ñee ñooy am ñii courant bi tamit nii lay demee lekk lekk bi tamit nii lay demee leneen ak leneen nii lay demee ñu ne déetewaay même nga ñëwaat ci transport bi otel lii temps nga leen di jox ah ñi ñoo xamante ne ñooñu est que soxla nañ xaalis ñu soxla xaalis dëgg dëgg dëgg moom may moom may kii euh, secteur informal bi ñooñu ñoo soxla xaalis. ñooñu ñoo soxla ndimbal ndaxte ñoom ñoo constitué de la population du Sénégal yoo ci ci du Sénégal ñoom ñoo ci contribué nga ne yow ñoo ñooñu doo leen jox ndax tax leen te ñoom ñun ñu représente 97 pour de la population. mais am na yenn yoo xamante ne soo xamante lu dafa dafa war a tegu am na yenn yoo xamante ne da nga ko war a xoolaat mooy maanaam économie bi ñu koy doxal dëgg-dëgg moom moo doon jox seen gëdd yow nga ne da ngay distribuer ñan nga ne leen di jox ay 2 transport dem dikk nga jox leen ay plus de deux milliards et quelque transport tata nga jox leen plus de deux milliards pendant ce temps les clando nag clando yi ñoom amuñ amuñ amuñ ca seen amuñ seen amuñ seen yella yella fi waroo leen waroo leen jox dara ñooñu ñooñu ñooñu war a jàppale ñoo xamante ne ñoom jusqu'à présent ñoom waroon nañ ñoom suñ taxawoon rek rek rek économique du dox mais mais ñooñu joxoo leen. pour ma moom lañ bëggoon. mais da xam état lan la war a def lan la war a def war warut a ah. mais dafa war a créer les conditions yoo xamante ne yu normal yoo xamante nit ñi mën nañ cee gis seen bopp. jeunes yi mën nañ cee gis seen bopp jeunes yi nekk ci clando mën nañ cee gis seen bopp jeunes yi xam ne dañuy def ay kii marché ambulant mën nañ cee gis seen bopp mais tey jii nii kenn ku sa ndigg ñeneen ñi borom doole yi nga gën leen enrichir lii lii rek lay joxe. xam nga lan laa a wax dafa am noo xamante ne noonu lay doxee comprendre yow boo ñëwee nga bëgg a kaasal ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ñoom ñooy yor wàllu wàllu secteur informel bi comme ñenn ñi nga xamante ne ni ñoom marchand ambulant yi ñi nga xamante ne ni dawalkatu clando yi gis nga état bi bu dégagé benn budget ne da koy da koy da koy da koy jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor wàllum transport isient yi déggum la ne ne ne dawalkatu taxi yi jox naa leen jox naa leen lii dawalkatu bus tata yi jox naa leen lii dem dawalkatu dem dikk jox naa mu mu mu omettre ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa waa waa waa yeeg genre yooyu noonu c'est parce que li ngay war a waxal du état nga war a waxal mais ñi yor wàllu clando yi si jëm bopp nga war a waxal xam nga lan moo tax nga war a waxal parce que ñoom ñoo amul benn organisation boo xamante ne ni si ay déggul la dañuy ñëw imposé wu ba état reconnaître la gis nga gis nga gis nga pour pour pour pour pour pour pour nga ñëw bokk si li nga xamante ne ni moom mooy list list bi nga xamante ne ni état bu amee sax naan da ngay jàppale si wàllum transport yi si ay déggum la yow pour nga bokk si yow sa jëm bopp yow yaay yow yaay yow yaay ba yow nga bokk si biir état ba pare est-ce que comprendre mais chauffeur clando yi da leen di gis yow boo waxee lan moo tax ñu leen di yàpp di leen jàpp nii di leen jàpp à chaque instant c' est parce que déjà dañ leen reconnaître gis nga ñoom seen reconnaissance lañ war a njëkk kaas ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum secteur informel yow état ba bëggoon jóg ne day jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllu secteur informel bi yow état loolu nan la koy organiser ñan lay jàppale nan lay jàppale marchand ambulant na benn jour Macky Sall bi nañ ko na ko fii gars ko ba tàyyi ne nañ Macky ci ci affaire yi ku ñu bëgg nga am ko nañu woon ba xam ne nga def nga am ko. moom dafa lambe sax même tudd même tudd xam nga xam nga tey ñoom état ñoom ñoo xam ñëpp ku ñu reconnaître ku ñu reconnaître ñoom xam nañ leen Ablaye Sénégal nekkul képp ku gouverne kuy liggéey ci état wala wala ñii wala ñii ñoo ko moom population nga jiite menuisier bi am na si yoon mécanicien bi am na si yoon tôlier bi am na ci yoon ku nekk da ci am yoon comme am la ñooñu. yow reconnaître la mais boo leen bëggee reconnaître da nga leen di reconnaître parce que yow yaay état yow yaay war a diriger yow yaa war a xool ku nekk ni koy tegee si yoon mais du question chiffre clando moo jógee fii dem di laaj ministre ah, ñuy def pour am lii nan la pour am lii xam la déjà yow Sénégal fii suñ la ko waxee rek yow yoroo xaaj buy dem bay bay matal condition yooyu noonu état moo ñëw fekk benn garage wala mu ñëw fekk ay marché ambulant mu mu teg leen ci place bu baax ne leen da leen nekk fii ak fii ak fii te benn affaire am gis xamal leen du dafa mel ni tey exemple quartier bi mel ni xaar xam nga ñu am chef de quartier bi mel ni Paa Gueye muy tëj buntam quartier populaire la tëj buntu kër xaju fi da ngay tëj sa buntu kër bi nga xamante ne suñ day am problème am ñeme dugg fii nekkuñ quartier boo xam ne da ngay dem ñuy tëj buntu kër ba am boo bëggee maanaam boo bëggee boo bëggee doon chef de quartier Almadi bu nekkee chef de quartier Almadi Almadi dañuy tëj buntu kër nga bu nekkee chef de quartier Almadi da ngay tëj sa buntu kër mais tey mënoo dëkk gi mënoo dëkk biir Arafat hmm. xam la di tëj sa buntu kër Arafat amul tëj buntu kër Xayal amul tëj buntu kër booy dugg da ngay dugg fekk si waa kër gi ba ba am ba am yeggali xam la léegi ne xam la ne fekkee yow France boobu nga bëgg a créer bu ko indi biir Sénégal da nga ñuy problème parce que France ñu France ay usines européen dañoo am ay usines dama la boo ni dëkk ñu bëgg di créer Europe bu ko indi fii moo ñu sonal xool li ma koy wax xam la laa ko bëgg a wax dama ne ko dama ko li ma koy expliquer xam la laa bëgg a wax gis nga sànq dafa ne dañuy wax sànq si wàllum violation couvre-feu bi mu wax manifestation yi ba baa bi appuyé ko loo gis rek damay wax parce que yéen yéen jël affaire bi yóbbu ko si angle boobu noonu ne état boo bëggee mu dégg la nan ngay def yëngal da ngay yëngal gësëm mm. te yéen a ko fi wax yéen a ko fi defal léegi léegi dama ne ko ñoom kalandoo bi président de la république Macky Sall xam na ni kalandoo ça existe mm-hmm. kalandoo ça existe depuis avant ñun ñuy ñuy ñun ñuy exister ñun comprendre nga depuis boobu ba léegi kalandoo mu ngi am ñoom reconnaître ñu leen lan moo tax parce que ñoom ñoo bëggul ñu reconnaître bu ñu defee ñi nga xamante ne tata tata tata état moomu ko ici ay dégg la daf fi dugg mais ay ay ay privé ñoom ñoo ko moom mais ñoom ils sont reconnus par l'état xaalis bi mu génnee ñoom am nañ ci. Moussa Moussa xaar rek même ma yeggali. waaw d'accord naa comprendre nga. kalandoo bi ñoom bu ñu état bi li mu wax dëgg la état mooy ndey mooy ndeyu jur gi. est-ce que déggul la moom buy joxe ñëpp lañ ci war a participer ñëpp lañ ci war a participer mais état bi bu waree jox transporteur bi lan moo tax muy jox kalandoo parce que kalan ñoom considéré leen comme ñi nga xamante ne ils bi mais am na yenn secteur informel yoo xamante ni ñoom isient déglu la ñoom dañoo am organisation ñoom ils sont reconnus par l' état bi bu demoon ba nga xamante ne day secteur informel bi wala muy muy di jox ñenn ñi mais ñooñ dañuy am parce que ñoom ñoo xeex ba am autonomie boobu noonu mais yow kaasoo amoo autonomie amoo dara nga bëgg yow état buy joxe buy joxe buy joxe muus yi ici ay déglu la xaj nga bëgg a ñëw fële na yow am ci ci wàllu loolu mënul nekk. mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais wàllu reconnaissance laa wax ba pare mais tam mais mu loo wax débat bi yëpp yow wàllu reconnaissance laa wax ba pare wàllu reconnaissance sax yow li nga wax dama si ànd ak yow d'accord naa tamit Moussa li mu wax mais benn affaire dafa am quoi comprendre la état moom moo war a ñëw xool benn secteur xam ne fii nii dafa jaxasoo dafa kërëb kërëb jàppal baay mun leen organiser wu leen def leen nii def leen nii remplir conditions yi nii. ñu defal leen loolu yaa koy l' état est là pour quoi mu war a demee. état déggul loolu la Ablaye laa leen rek ma ñëw si yow. ma ma ñëw si yow si yow laay ñëw dama ne la état bi moo war a fekk benn secteur waxuma kalandoo wala affaire parce que bëgguma ñu ñu ñu jël débat bi rek yóbbu ko si angal kalandoo. transport am na solo kay. Ah, mais dama ne la dama ne la tey tey Ablaye Mbaye ci boppam nit ki moom mooy ñëw xam nga li ma la li ma doon wax sa xaw xawmatuma ko mais état daal moo war a ñëw fekk benn si kon benn benn benn benn secteur boo xamante ne dafa jaxasoo affaire yooyu normalul kërëb kërëb jàppal bàyyi parce que mun nañ gaañante seen biir doo xam kii foo koy seet kii fan la jóge kii lii lii lii comprendre nga wala nga jékki-jékki jóge Kër Massar jékki-jékki ñëw ba point si sec def sa garage kalandoo xam nga nit ñi du ñu am fu ñuy jàll xam nga loolu mënul nekk état moom moo war a organiser loolu ba xamante ne comprendre dañu jàng ba am seen diplôme xam nañ ne état yi doxee xam nañ lan la loolu secteur yëpp doxee comme lan la mais ñoom tamit ñoom bu fekkente ne état deful loolu yéen tamit li leen Ablaye wax da ngeen war a def da ngeen war a organiser waxtaan seen biir parce que toog rek di wax état état état état financement bi muy jël foofu di leen ko jox moom arrangé wu leen yéen arrangé wul état de non c'est que dama dama dama wax rek am na yenn yoo xamante ne nag ñoom wax dëgg su jotee foofu ñu wax ko ñoom ñoo war a organiser c'est que c'est mm, am na am na benn jamono en 2013 marché dafa amoon maanaam état dafa jëloon ay ay ay ay ndogal mu ne mu ne comme que léegi gars yi ay meubles yi ñuy war jënd bitim réew dootuñ ko jëndati léegi faw ñu def ay marché yoo xamante ne menuisier yi nekk Sénégal ñoom la ñuy jox marché boobu noonu maanaam ñoom ñoo war a équiper les ministres les les les les départements les ñoom ñoo ko war a occuper c'est la même sos bés bu defee noonu yaay menuisier yi bés bu leen loolu noonu bés bu ñu ko appliqué woon bu ko ñëpp appliqué woon mhm. tey jii nii nii duñ am problème boobu noonu tey menuisier yi duñ sonn te ñëpp nañ nañ nañ gis seen bopp ci loolu mais tey ji loolu lañ appliqué wul c'est-à-dire que am na yenn yoo xamante ne ne dëgg dëgg foo mu nekk clando bi ak transport bi c'est la même ndaxte ñoom ñëpp même liggéey bi la ñuy def pourquoi nga reconnaître ñi ñun nee na reconnaître c'est que ñoom c'est-à-dire que ils sa état sa nga reconnaître ne clando am na si say discours sax parfois dañuy dégg ne ne yow am transport bi am na ñeen ñoo xamante ne ne sont laissés à c' est que ñoom tamit su suñu organisé wul yow sa oh, tu as le nga organiser parce que ay nit ñooñu seen bakkan lañ yore. nit ñooñu su suñ dee ci oto yooyu lan la ñuy wax. c' est l' état du Sénégal moom moom moo moom moo yor loolu. te pourtant fay assurance te pourtant am dañuy am seen seen ah, mais am na yenn yoo xamante ne ni seen oto dañ ko am. mais loolu yëpp mais loolu yëpp yaa war a organiser. mais état moom moo organiser wul. a laissé la population dafa bàyyi population mu jël ay ndigalam mu jël loo xamante lii moom moom la war a lekk moom la war a mu ci sukkandiku. loolu mooy feeñ bés ko 1960 nga gis loolu présent nga def noonu. nga nga continuer noonu. billahi yow am noonu am na yenn yoo xamante ne ko war a xoolaat. am na yenn yoo xamante ne ko war a xoolaat c'est l'état du Sénégal l'état tey jii di ak deux ans trois ans ñaata la ñuy doon seize pour cent euh, nu mu taat euh, seize mille et quelque dix sept mille et quelque ñooñu ñëw yow mën nga sukkandiku ci transport entre Tata ak dem dikk pour pour ñu la te nga am ko nekk fii nga ne si nga ne ne nit ñi na yéen nga ñaan nga nga ñaan ñi nga ko nga ñaan ñi Sénégal kenn mënu leen remplacer kalandu ak car rapide ak kalandu ak kalandu yow déjà état tata yi nga wax ni ak bus yi nga xam rek la ñuy wàcc laaj seize kuy liggéey si état rek mooy wàcc seize yow fi doo wàcc seize heures kuy liggéey si état rek mooy wàcc seize heures on se dit la vérité te moitié ñuy liggéey si état yëpp seen oto bopp lañ yor soit def nañ prêt banque wala du genre comment la léegi population bi nga xam ne moo gën a sonn moo gën a suuf moom moom lañ gën a nekk xam la ñooñu ñooy wàcc ay 19 ay 20 xam la ay vingt et une heures ay karatin ngay wër ay njegejaay ngay tourné gis heure yooyu ñuy daw wala ay kalandoo nga gis fay cent franc comme la wala taxi te ñooñu noonu sax may ñu leen jàmm ci ba kalandoo yi barki yàlla ak car rapide est-ce que dégg nga est-ce que dégg nga bi leen car rapide yu car rapide yu kaas ne non non état joxuñu xaalis wala kalandoo bu kaas ne non état wala wala ko gis mu marche xoolal Moussa ngi yàlla mais non mais non damay damay xam laa bëgg xam xam laa bëgg xam xam laa bëgg xam nga ñooñu barki yàlla ñooñu soxla ñu kaas xam lu ñu soxla nga may leen jàmm ñu liggéey xool taaluñu pëne xuloowuñu xeexuñu buuxantewuñu mais xam nga pëne. te saa yoo bëggee déplacé nga déplacé rek taw du jig baldu tax taw du jig baldu tax taxal tamit loolu tamit yéen ñoo xamante comme Moussa yow loolu nga wax xam la laa bëgg a wax comme Moussa sànq li nga wax mooy tekk tekkaaral boobu ngeen def si wàllum distribution yi nag jox nañ tata yi ji lii jox nañ lële lii jox nañ lii is a déggum la tekk tekkaaral boobu ngeen def moom moo leen war man fustigé wu ma waxuma pour tata yi waxuma pour kalandoo yi wala car rapide ñu jóge fi man na xam naa ni xam naa seen rôle bi nga xamante ne ñoom ñoo ngi koy joué ci transport Sénégal. da nga koy jël wa dama koy jël. waxuma la dama ne la man xam naa seen seen su doon sama sago tata génn fi de dem dikk génn fi moo ma gënal kalandoo génn fi wala car génn fi ndax man pauvre pauvre laa damay dund ci pauvreté su may génn car rapide laay jël su ma jëlul car rapide laa laay jël aw ma njëgu taxi. essence déggum la moo tax man xeexal leen ba ba ñuy dee loolu moom mooy sama moom mooy sama wareef mais dama na la essayé déggum la bu ñu tollee ci situation boo xamante ne état bi dafa war a décaisser ne day jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum ci secteur transport ñoom waa kalandoo yeeg waa car rapide ñoom dañu leen considéré parce que ñoom amuñu ñoom seen jëm bopp defaruñu benn organisation boo xamante ne mais gis nga loolu dafa simple loolu manque d'organisation la ñoom bu ñu organiser woon essayé déggum la am nañ dem ci ci nga xama ki nga xamante ne ni moom moo moom moo jiite wàllum transport bi essient yi déggum la bugg a bugg a jël seen bopp imposé ko si milieu transport bi essient yi déggum la ala kulli àll dañuy dugg ñoom ko defee benn un an comprendre nga balaa moo jeex un an balaa moo jeex ñu ko ñu am lu ñu bëgg man loolu laa la wax wu ba nga xamante ni genre cas bu amee état war a génnee xaalis di ko dimbalee ba wàllum transport yi ñoom ñu bokk si mais seen pat pataaral boobu ñu def ndax kaasuñu tafuñu dara ndax état jox na tataay jox na dem dikk ñoom amuñu ñoom loolu da ñoom ñoo deful lu leen état bi reconnaître man foofu laay waxee deful lu mu war a def yéen yéen secteur informel informel yéen yéen organisé moom la a boole yoo xamante ne ni essayé am na secteur informel yoo xamante ni état bi bu muy génnee xaalis di ko joxe essayé déggum la ñoom dañ état bi da leen joxaale lan moo tax ñu jox leen parce que ñoom dañoo organisé wu essayé déggum la jël seen bopp imposé ko état état reconnaître leen donc état bi buy joxe ci wàllu boobu ñoom dañuy am mais yéen instant yi ni chauffeur calando ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey si wàllum transport calando car rapide ñoom dañ leen di état bi buy buy di jox da leen di considérer comme ñi nga xamante ne si population lambda bi lañ bokk da leen di joxee ñun en tant que population bu ñu gisee état bi di xawal doxal yenn yi di parce que état bi dañ ko jox pour mu garantir li nga xamante ne moom mooy suñu sécurité instant yi déggum la par la violence loolu dafa am leneen xamante ne da ko gëm dañ ko da ko gën te fi ñu toll nii état bi mesures yi nga xamante ne ni xam nga jël nañ ko xam nga yooyu population bi comme que état bi jël na ko ba pare population moom moo ñu si mën a dimbale pour nga xamante ne ñoom day daan corona comme El Hadj li mu wax ñuy ñaan état bi décision boo xamante ne da koy jëlati gis nga xool yan jeexital lay am ci li nga xamante moom mooy population parce que après population bi moom mooy mujj di subir rek parce que feebar baa ngi fi day gën a yokk rek di gën a law donc ku nekk moom moo war a mën a dimbali bo moom boppam xam ne ni affaire yi ba léegi mu ngi fi respecté li nga xamante ne moom mooy les mesures barrières xam nga mesure barrière yi képp ku nekk bu ko respecté rek waaw feebar bi bu neexee yàlla isient dol la yi dinañ ko song te te te te te dinañ ko daan di remercier ñëpp di wax ne ne débat bi tamit moom wax dëgg fa neex yàlla am na solo trop trop trop trop ñaan gars yi dañu continuer di suivre émission si la bokk si Senclic wasalaamu ala mu ni rabban mooy li ma li li li ñëpp wax rek xam nga ko waa di rejoindre tamit Ablaye Mbaye si li mu wax comprendre nga euh, nit bu la amee amelee xaalis ne la fin du mois naa la fay sa xaalis comprendre nga yoon la fenn waa mu ñëw ba si yow ne la am sa xaalis a ngi nii su ko deful yow tam yoon la nga ñëw ba foofu ne ko li ma lebal li ma la lebaloon delloo ma ko comprendre nga yéen ñaan ñëpp bu ngeen deful li ngeen war a def kan mooy perte mooy ki nga xamante ne moom lañu ñu amee moom mooy perte quoi secteur informel bi ñëpp laay wax muy menuisier muy mason muy kërëb kërëb jàppal bàyyi léegi kenn dofatul quoi ñoom ñëpp jàng nañ xam nga xam na nan la ñuy organiser woo xam na nan la ñuy utee kayit am na loo xamante ne ñoom ñoo ko jël lebal ko état mooy ci taxi ñuy fay ak yenn affaires yi bu ñu amee problème ñoom tamit yoon la dem ba ci bu état ñëwul ba ci ñoom ne leen organiser wu leen ma defal leen lii wala def leen lii ñoom nañu dem ba ci état organiser wu dem ba ci état ne ko liñ la ameloon liñ ñu ameloon delloo ñu ko quoi comprendre nga suñ ko deful tamit état du perte ñoom ñooy perte comprendre nga di waxaat tamit comme li Moussa wax rek waa di remercier ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci ba si jumaa ji ibbi xam nga wax dëgg yàlla tamit di di di di ñu ko waxee félicité waat population wu xaar yàlla bi yëpp xam nga nu ñu respecté mesures yi bu ñuy julli si xam nga ak lépp nu ñu ko doxalee ba fii nii moom rafet na moom xam nga di wax ne comme instant bi wàccee waat nañ mesures yi quoi assouplissement bi am na ba pare comprendre nga te comme li ñuy wax apprendre à vivre avec le virus xam nga na gars yi jëlaat seen matuwaay ba bañ xam nga tamit parce que am yenn affaires tamit xam nga àndul quoi may ñu ñu dox suñu bàyyi leen affaire yi kërëb kërëb ñu bàyyiwaat lépp mu sedd xam nga nga génn raxasuy respecté tu leen ko masque yi respecté tu leen ko amul sens quoi am na amul gëm ngeen ko gëmu leen ko comprendre nga def leen li nga xamante ne loolu la seen yoonu dëkk wax comprendre nga kenn amul droit génn te soloo masque nañuy sol seen masque yi quoi nañu respecté distance yi nañu respecté distance nañuy raxasu nañuy raxasu booy sëqa defal nii defal nii wàññiwu la dara quoi xam nga di wax salaamaaleykum wa rahmatullah xayru ba in fi hadaba كل ولا هبي ما لهذا تابا لواجب ما أزدال مبيلانا فراته والهم ما هاب بطل الذي ليس هني des na de baax na. jël. Adama Traoré ban. loolu fa kañ la. France ban année la jël coupe du monde loolu moo tax ñëw na France ba mu jëlee français moo tax président France bi génnoo di wax naan kontaan na si coupe bi mais bu fekkonte ne équipe nationale bi nekkul équipe nationale de couleur loolu moo naroon yëngalaat ak coow yi mais mot de passe na. xam ay ANACIM loolu moo tax. Ah, loolu yàgg na dem mhm. mais moom ak kii ñoo bokk ñu ne réew parce que moom tam moo la ko positionné mu mu